wàllum insécurité jamono ji ñu koy laam-laamee ci dëkk bu sell bi ci Touba mbir mi dem na ba yematul ci li nga xam ne moom moo di commerce yi rek dem fi nga xam ne nii fala way daw yu tëdd muy armée li bàq ya yu Touba coow li nag jamono ji ne kuru ngir sàcc yi nga xam ne nii jamono ji dañoo dugg ci armée li bàq ya lal ci yenn mbàjj yi nga xam ne dañu ko sàngee woon yenn ci barabu kilifa yi waaye itam aluminium bi nga xam ne ni dañu koo defoon ci yenn ci barabu kilifa yi ngir ràññee leen loolu le nag tax daayira Muxaddamatul Xidma mi nga xam ne nii moom mooy kuréel gi saytu armeel yu bàq ya ak yi nga xam ne mooy armeel yu njëkk ya te Serigne Saliou Mbacke dénkoon leen ko di ci indi ay leeral. ajjuma ji weesu nag euh, ci la ñu constaté ci vers 13h ci ne lañ ñu signalé ne am na koo xam ne mi ngi ci biir armeel yi di dagg aluminium bi nga xamante ni moom la ñuy defal euh, bàmmeeli yenn kilifa yi barab yenn kilifa yi ndax xam nañ ne sëñ Sidi Muxtaar bi mu joxee ndigalul nañ fi ñëw dafa santaane woon itam ne bu tabax. ndax tabax gi day xatal armeel yi loolu ñu ñu koy sàmmonte waaye benn benn kilifa yi nga xam ne am nañ fi ay barab bëgg ñu ra ñu xëy na ràññee ko ngir di ko mën a toppatoo moo taxoon ñu jël lu mel ne ay barrière aluminium di ko fa def ak di leen lalal ay mbàjj ngir di bañ suuf si di naaw loolee nag la ay ñaawteef kat dugg ñuy def kati ñaawteef dugg daal di dagg boppi aluminium yooyu ak lenn ci barrière aluminium yi waaye tam lal li mbàjj yooyu ngir di ko jaay loolu mooy xew-xew bi. naam sàcc ci ay armeel nekkul ne ci dëkk bu sell bi di Touba rek la ñu ko nemmeekoo daanaka ci ay gox-goxaan yu bëri ci réew bu Sénégal boo fa demee mbir mu nu mel dafay am waaye itam mu nekk luy faral di soree lool jamono ji nag waa mu xàddimatul xidma di fësal ne jar na bu baax a baax kilifa yi daal di gën a jóg ngir ñu renforcer li nga xam ne moom moo jëm ci sécurité armeel yi bàq yi Touba ndax superficie bi yaatu na lool te jamono ji ñaari gardien rek ñoom ñoo fay fanaan ngir daal di veiller ci li nga xam ne moo di sécurité ba kon jar na commune bu Touba kilifa yi daal di jóg def fa lu mel ne ay caméra de surveillance. ku nekk xam na armée li daanaka un kilomètre la dafa gudd dafa yaatu un kilomètre kenn nit mënu ko mënu ko mënu ko gérer ci ci di ko di ko di ko wër ak ak ni mu guddee miir bu gudd la benn porte la moom mais nag loolu mu mu su ko donc euh, foofu bëggoon nañ kon ñu gën a dolli personnel bi. am na sécurité naam mais sécurité bi nag gën a dolli ndax luubalkat moom yaakaar naa ne segam fi nga xam ne fi la nit ñuy dund sax biir dëkk bi nit ñuy dund sax moo am ay barakaas ak yooyu rawatina foo xamante ni ay armeel la daanaka ñi fay ñi fay ñu fa tëdd ñëpp ñu ñu ñu wuy ji seen borom lañ kon bëggoon nañ sécurité bi ñu dolli ko dolli personnel boobu ngir mënuñu wax ne amul sécurité completement waaye jar na dolli ndax ñaari nit mënuñu assurer sécurité bi kii di yendu kii di fanaan dégg nga euh, te loolu commune bi moom moo leen fi beneen bi ci topp mooy éclairage public bi lu mel ni lumière yi lamp yi parce que am na ay làmp mais yooyu salaire la te dafa am jafe-jafe yu ci bare bëri tàkkul ku fi ñëw guddi di nga ko gis donc itam foofu bëggoon nañ ñu yokk éclairage bi ba nga xamante ni làmp yi dana mën a leer ba def kati ñaawte fu mu mën a jógee bu kiyee ñu séen ko ndax ñoom lu leer lañ bañ lii nag ñëw yokk ci insécurité bi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku ci dëkk bu sell bi di Touba jamono ji nag armeel yu bàq ya ñi nga xam ne ñoom ñooy waa Muxaddamatul Xidma ñi ngi ne sécurité bi war nañu ko yokkaat bu baax a baax waaye itam ci mbooleem jullit yi te xam ne mbir mi bokk moomeel la te itam murit bu nekk bëgg nga soo faatoo ñu laa lay indi ci dëkku bu sell bi di Touba tey itam ku fa amul mbokk itam am nga fa xarit wala ab sëriñ bu fa tëdd kon mbir mi question la boo xamante ne nii mbooleem taalibe yoonu murit yi la soxal